may yonent bi sallallahu alayhi wasallam muy rammu di dem ci biir safara hadis dana ñëw ci hadis yi biir téere bi di wax yonent bi sallallahu alayhi wasallam yàlla may na ko ne ko demal ci biir safara koo fekk lu day ni fekk bëtti ci gëm yàlla ci xolam génne ko mu dem aljanna mu daal di dem génne ñooñu ñëpp ñëw na ko doy na ko mu mu ne ko demal koo fekk lu day ni ban bënu puso day bëtu melentaan boo demee koo ci fekk ci gëm yàlla ci xolam demal génne mu daal dem génne génne di loolu mu ne ko demal seet koo xam ne bëtu melentaan buñ ko xaajee ñetti xaaj koo xam ne lu day ni ñetteelu xaaj booba mu ngi ci xolam ci gëm yàlla defal génne mu daal génneaat yeneen mbooloo ñëw na ko sama borom li ma bëgg daal mooy nga may ma ma ràmm képp koo xam ne mos naa wax laa ilaha illallah mu ne kooku nag moom man maa ko moom man may may may allah man lañ doon tudd kon nag loolu man suma domaine réservé la maa ko moom yàlla nag mooy mooy ràmm nag daal di tibb ci loxom bu màgg ba ci safara sotti aljanna tibbaat sotti aljanna yoon di ngi nettali sax waa ji mujj a génn safara mu ne waa ji dafa ne sama borom man de su ma génnoon safara rek doy na ma yàlla dala koy génne mu nekk mu nekk ci biti bi mu toogee ci biti yaram moom yëpp daal di soppeekuwaat ndax ci coono ba yëpp jeex na mu toog ba ci yàgg mu ne ko sama borom man de maa la ñaaroon la génn bi rek doy na ma waaye garab gii daal sama mayoon ma àgg ci mos ci la ci la ci ne mu ne borom bi ne ko ah foo dootuma ñaan leen de mu ne ko déedéet jeex na garab gii ba ma ci maye ba ma dem ca jeex na yo mu ne yoon bi ne yàlla na ko demal mu dem ci garab ga daal di lekk ci meññet bi daal di toog ci ron gi ba ci yàgg mu gis geneen koo xam ne moo gën a jege buntu aljanna ne ko borom bi de maa la waxoon ne dootum ñaan waaye géedee moom wax dëgg yàlla sant na wax mu ne ko doomu aadama daal yéen seen affaire kenn xamoo ko yow li nga waxoon waaw demal mu dem ci garab googa ba mu demee demu fa di mu laajaat beneen garab boo xam ne mu ngi ci buntu aljanna bi mu demee ba taxaw ci buntu aljanna yurlu aljanna ko borom bi teg ma xas dugal benn rek yàlla na ko dugal aljanna ne ko nag loo bëgg ci aljanna loo bëgg mu ne ko man kay soxlaatuma dara man su ne amatoo loo mën a dolli gees na yoo xam ne dugal nga ma aljanna addis bi yoon bi daf ko indi bi mu ko nettalee dafa dafa ree ba bañu muy feeñ moo tax saxaaba bi ko saxaaba bi ko nettali bi ko ne dafa ree ba bañuy feeñ gaa ñu waxu dara wala ñu ko kenn laaju ko mu ne ma léegi laaj bi ma lu may ree de ñu ne ko déedéet mu ne bi ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam nettalee noonu la reeyee ne yàlla ci boppam noonu la doon reeyee waa jooju nga xam ne moom mujj jëlee kon nag ku xam ba xam kii mujj génn safara dugg aljanna ñu ne xamul xaybu kon kan mooy xam xaybu xamu ko nag en tant que Muhammad en tant que doomu aadama bindeef déedéet waaye xam na ko en tant que kuñ xamal yàlla moo ne allama bil qalam allama al insana ma lam ya'lam kon gannaaw kooku la kooku moom diggante yàlla ak Muhammad du na xëy na ba moo tax téere bi téere bu am solo waaye am koy tàmbalee di wax ne nahmaduka allahumma ala ni'amihi ni'mati tawfiq ñu ngi lay gërëm yow yàlla ci xewal yi dajale gi ñu dajale wa nasaluka allahumma alhidayata ila aqwami tariq ñu ngi lay ñaan ba tey ngay teg ñu ci yoon yi nga xam ne mooy yoon wi gën a jub wa nusalli wa nusallimu ala nabiyika wa rasulika sayidina muhammad alladi ba'athahu linnaasi rahmatan ñu ngi julli di sëlmal ci sa yonantu bi di sa ndaw li suñ sang muhammad ki nga xam ne da nga koo yónni mu nekk yërmaande mboolem mbindaafa wa antaqtahu bil huda wal hikma nga wax loo ko njub ak itam xereñee njub mooma wa ala alihi ak ñoñam wa sahbihi ak sahaba alladina ñi nga xam ne xafisu wattu nañu hudaahu njubam ma moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wa ballaguhu ñu jotal ko wara aw ñu gis nuurahu moom leeram ga yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fattabauhu ñu topp leeram googa mu ne amma baadu gannaaw bu ma sante yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fa inna ilma alxadis yi daal naka xam-xamu xadis min ajaddil ulumi bokk na ci xam-xam yi gën a kowee xadran ci daraja xam-xam yi gën a kowee daraja bay seen njolloxtal mooy xam-xamu xadis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wa azabiha nafaan moo gën a bëri njëriñ itam ci mboolem xam-xam yi li anna mawduahu li mu lamb sanana rasuli mooy sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wa athaaruhu ay jayitam alqawliyatu yey wax ku jóg wax wala fiiliyatu ak yey ku jóg def maanaam sunna yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñoo xam ne waxam la ak defam la baatam sunna luñ ci jublu sanna ya sunnu mooy xotti na yoon te sunnatu mooy yoon mooy tariq mooy mooy tariq léegi lu tax ñu tuddee hadith yonent bi sunna parce que mooy yoon yi nga xam ne ci la ñuy aw mooy salaatul mustaqim bi nga xam ne yàlla wax na ne day leen ñaan tudd ihdina salaatul mustaqima salaatul mustaqima boobu mooy ban mooy li yonent bi sallallahu alayhi wasallam xotti ne bii mooy salaatul mustaqima moom la yàlla wax ne wa inna hadha siraati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabilihi nee na kii mooy yoon wi kon kooku mooy yoon wi kon sunna mooy tariqa almuttabaa wa sunna rasuli sallallahu alayhi wasallam yu sunnaay si yonent bi sallallahu alayhi wasallam mooy ay waxam ay jëfam ay taqriram maanaam lu mu dégg wala mu gis ko noppi ca waxu ca dara wa wasfuhu wa simatuhu wa hadyuhu ba tey nag yemul sunna emul rek ci li mu wax ak li mu def ak li mu gis noppi ca loolu mooy moo lamb sunna waaye ci biir loolu itam jàngal nañ itam melo yonent bi sallallahu alayhi wasallam naka la meloon jàngal nañu itam mandarga yonent bi sallallahu alayhi wasallam jàng jàngal nañu itam li mu doon digle noonu wan yoon la ci jaaroon ndax ku jafe la woon wala ku yomb la woon wala ku ku tiis la woon koo xam ne kenn mën a jëflante woon ak moom wala ku noy la woon loolu yëpp dañ koy jàng ci sunna bi ak jikko yi nga xam ne moom la làmb woon mu ne jëy itam ci waxam ak jëfam moom moo leeral sunnaam buñ ne sunna yonent bi sallallahu alayhi wasallam nga ne mooy waxam ak jëfam ak li nga xam ne def nañ ko ci kanam mu nangu ko waaye loolu naka nga ci àggee jëfam yi ci nga ko àggee moo tax jëfam yi laaj nañ nday Aïcha ne ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam lan moo doon jikkam mu ne alquran moo doon jikko kon maanaam li nga xam ne yàlla wàccee na ko ci moom muy alquran ba pare digal ko mu jëfee ko moom dafa jëmmaloon jëf ji ba nga xam ne foo gis rek gis alquran muy dox Seydina Ali ne na kaana qur'anan yamshi ala al ardi mu ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam boo ko bëgg a mel leer te noppalu waxal ne la quran bu doon dox ci kaw suuf la kon lépp loo gis ne alquran am koy digle ci ndigalal yàlla doo gis mukk safaan ba ci jëf yonent bi sallallahu alayhi wasallam lépp lu alquran tere doo ko gis mukk ci jëf yonent bi sallallahu alayhi wasallam lépp loo xam ne day defar diggante da nga ko gis ci sunnatu yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo tax mu ne sunnatu yonent bi sallallahu alayhi wasallam lépp la boole dundam lépp la boole maanaam daal kon sunnam moo jëmmaloon risala moo tax mu ne kon alquran yoo xam ne daf doon dox ci kaw suuf mu ne fa fi hada hadihi xayru nnaasi wa hidayatuhum jàng nag sunna yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci waxam ci jëfam ci jëyitam bu ca nit ñi nekkee dañuy nekk ci njub nekk itam ci texe goo xam ne ñu ngi koy jëlee ci topp yonent bi sallallahu alayhi wasallam te itam yonent bi wax na ne yan na yàlla nëtëxal jëmm joo xam ne dégg na ci ñun hadis mu wattu ko ba jot jot ko keneen benn hadis boo jàng mu wér la ne hadis bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo ko wax nga bokkal ko toog ci mbooloo wax na yonent bi ne na nangam nit jëriñoo ca yonent bi mu lay ñaanal déjà bi nga commencé di jàng rek mu ne yan yàlla yaatal te nataxal sa dund maanaam mu def ko mu dund bu neex ci diine kopp koo xam ne jël na sama hadis dégg ko mokkal ko jotal ko ba jotal ko keneen ku ku dul ku dul moom mu ne itam man xafisa ku wattu na ala ummati ci sama xeet arbaina xadisan ñeenti a ñeent fukki xadis min amri diiniha ci mbiram diineem baasahu llahu xel na ko dekkal yàlla yowma alqiyamati bés penc faqihan di aji xam diine aaliman di aji borom xam-xam te xam nga ne innama yaxsha allaha min ibadihi al ulama ñi ragal yàlla dëgg-dëgg mooy borom xam-xam te ragal yàlla nag lu muy jural jàmm bi ngëneel yàlla ak ngërëmal yàlla kon mu ne képp koo xam ne mokkal nga ñeent fukki hadis ci hadis yonent bi sallallahu alayhi wasallam yoo xam ne dafa aju ci diine nga mokkal ko boo ko jàngalee keneen ku dul yow yàlla bu lay dekkal daf lay dekkal nga nekk di borom xam-xam di borom fiq beneen hadis mu ne yàlla daf koy bind mu bokk ci kuréelu borom xam-xam yi te yàlla daf koy mang mu bokk ak way shuhada yi ñi nga xam ne dañoo shahid ci yoonu yàlla dañ koy mang ci loolu loolu tax ñuy wax ne amul benn xam-xam boo xam ne jàng ko gënul bu mel ni hadis moom jàng ko rek doy na jàm bi am ngërmaane yàlla li nga xamee ne yonent bi nee na xayrukum man taallama alqur'ana wa allama ki gën ci yéen mooy ki jàng alquran di ko jàngale ba tey itam dégg ngeen ci ne ki gën ci yéen mooy ki jàng hadis yonent bi sallallahu alayhi wasallam di ko jàngale loolu tax bi ñuy suñu soppee suñu xarit yu lépp nga xam ne mën nañoo wax ne ñoo bokk benn camp bi laaj ma ñu waxtaan ci li ñu war a def ma ne ah tere hadis parce que gannaaw ñeent fukki hadis ku ko mukkal boo ko foo ko jàngee yàlla def la ngay borom xam-xam boo xam ne bu ñuy mang ñi nga xam ne dañoo sayit ci yoonu yàlla ñooñu ngay àndal dem aljanna kon boobu téere jàngale ko wax dëgg yàlla dafay yokk mbooloo mi waaye du ko delloo gannaaw kon ndokk yàlla bi ñu yàlla xamale loolu mu ne waaye nag mbir yépp mu ngi aju ci yéene yi innamal amalu binniyaati ku yéene ku jàng hadis wala nga jàng xam-xam pour pukkare woo loola na nga xam ne li nga ci am rek mooy pukkare googu doo fekk dara ci yàlla ndax hadis dana ñëw yonent bi ne nit dana ñëw yowmal qiyaamati yàlla laaj ko ay julleem ak kooram ak ajam ak asakaam ñu tudd yëpp yàlla na ko man de gisum sa téere baa ngi nii dara new ko mu ne ko sama borom man daanaa julli daanaa or daanaa aj daanaa asaka laajal nit ñi mu ne ko xëy laajal nit ñi nit ñee taxoon nga doon ko def da ngaa tax bëggoon ni ñu wax ah kii de moom musibakat la kii de moom wirdokat la kii de moom jàngkati alquran la kii de moom jullikat la gannaaw nit ñee taxoon nga di ko def nag man sot su ma yoon nekk ci man du ma nit man du ma nit defaloo ma ko moo tax dama ci nit ñi ñu fay la loolu tax mu ne nag mbir yaa ngi aju ci yéene yi bi ngay jàng hadis te yéene na hadis bu moom ci yàlla may ma dégg ko ci sama sëriñ danaa fexe ba dugal ko ci noppam même bu dee sax kenn ci sama li ma wër wala ci benn benn jullit wala ñaari jullit yéene jooju moom la yàlla yu fay ndax lott nañ ñun ci defal yàlla wa ndax ni yàlla bëgg ñu jaamoo ko mënuñu ko loo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di wax ne na ngeen julli ni ngeen ma gisee may julli waaye waxut ne na ngeen julli ni may jullee parce que ni ngay ni ngay gisee mooy nañ ko roy ci njàpp mi rukkoo gi ak sujjóot gi ak taaya gi loolu yëpp nañ ko ci roy waaye su waxoon ne nañ julli ni ñuy jullee kon kenn du julli ndax mat gi nekk ci moom ak teew ci kanam yàlla gi nekk ci moom nekkul ci keneen ku dul moom loolu tax mu ne na ngeen xool rek ni may lan defee nga def ko kon nag ñun bu ñu wanee suñu borom ba pare lott na ne mënuñ laa jaamu waaye nag daal jéem jéem googu ñuy jéem loo tax yàlla dañuy bindal jaamu gu ma sëkk loo tax boo jullee rek mu jox la ja julli boo ooree mu jox la oor boo ajee mu jox la aj naka noonu la boo jàngee hadiis Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bëgg jëriñoo ko yow sa bopp d'abord il faut que nga jëfee la nga jàng ci hadiis Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba pare nag daal di ci xiir sa morom ak ku mën di doon te nag lépp loo xam ne doomu aadama ngi koy def gannaaw mu ngi ko tabax ci qaala allahu wala qaala rasuluhu yàlla nee na yonent bi nee na bépp jëf joo xam ne yaa ngi ko tabax ci loolu ku la wax ne yow nit ak bidaa la moom moo xamul luy bidaa ndaxte yonent bi sallallahu alayhi wasallam lim diglee dafa bari lim tere itam bari na lim wax itam ne ku sos ci suñu mbir loo xam ne bokk ci dañ ko koy delloo ku sos ci lislaam bi loo xam ne bokku ci kon kon déggal loolu lislaam li mu dàq wa dàqul sos ci biir lislaam waaye dafa dàq sos ci biir lislaam lu bokku ci lislaam lu bokku ci lislaam la wax ne nañ ko dàq ku ko sos ci biir lislaam loolu borom bi wax na ci hadis boo xam ne nee na ku sos ci biir lislaam sunna su rafet ñu jëfee ko fekk ñu ngi koy jëfee yàlla daf lay bindal yoon booba kon foofu tudd na ne sos am na waaye ci biir lislaam itam am na waaye nag lépp loo xam ne dafa dëppoo li yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax la looloo tax ku sos itam loo xam ne dëppoo utat li yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax su ko rek yow la nga sos noonu képp ku ko jëfee rek yow na da nga jot ci bakkaar boobu kon hadis yonente bi sallallahu alayhi wa sallam téere bii hadis bii rek waroon naa tax kenn ku nekk jéem a ut ñeent fukki hadis jàng ko nga tax borom arbaina hadis bind téereem booba ne kon naa dajale fii ñeent fukki hadis yu wér nga xam ne fees gi ñaa ngi koy mokkal rek man ma ci am yool te ku ko mokkal itam daal di nekk koo xam ne yàlla daf lay fang yow ma qiyamat yi nga bokk ak olama yi ak shuhada yi mu ne wali hada ngir nag lii ma wax nii ne ku mokkal ñeent fukki hadis yàlla daf lay fang nga bokk ak shuhada yi loolu tax mu ne yàlla daf ma bind man loolu taalif mooy wax ne ci bëgg hadis yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ak itam fonk ko lool mar ko lool looloo tax ma xalaat ne damaa war a dajale benn téere def benn téere boo xam ne dama ci dajale hadis yonent bi sallallahu alayhi wasallam ma daal di diisoo nag borom xam-xam yi ci loolu ma daal di def istixaara tàggu sama borom mu ne nag bi ma defee sama istixaara tàggu ñi ma war a tàggu ci borom xam-xam yépp yàlla daal di may won ak yom ay yombal ci bi ma bi ma bi ma ko yéene rek yàlla won ma ay bunti yombal yoo xam ne gis naa ci ne loolu ndigal la loolu la moom moom la Baye daan wax ne min alaamatil qabuli at taysir ne ne bokk na ci nangu ñaan boo taxawee di ñaan yàlla bokk na ci tegtali ne yàlla nangu na si ñaan yombal gi yombal li ngay ñaan xam nga boo taxee daal yàlla yàlla moo ko bil bunt bi tey daal moom dara aw dépasse aw ma ci dara yàlla yàlla nga yombal dépasse daal di génn rek benn waaye daal lay bokk 1000 francs xam nga yombal boobu mu la yombal 1000 francs wala na nangu na si ñaan kon boo génnee dem rek bala ngaa ñëw si yaakaar naa ne doo indi benn dépasse waaye da ngay indi dépasse yu bëree bëri loo tax moom itam mu ne bi mu bi mu na ñaan yàlla ndigal yàlla wan na ko ay yombal yoo xam ne xamee na ci ne ndigal la pour mu def téere bi mu ne lampi leer yi itam nag daal di takk ci sama kanam di ma bégal bi ma gisee loolu mu ne ma daal di sukkandiku ci sama borom dajale sama mbir nag maanaam dogg nag pour jëf ji ma commencé koo def mu ne ma commencé di ko taalif téere bi ci barkeb yàlla ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu ne ma daal di teewlu téere hadis yi nga xam ne ñoo gën a wér ci téere téere hadis te seen sanad sanad boo ko déggee ci hadis buñ la waxee ne sanadu hadis bi moo di ne bu ñu wax ne qaala allah qaala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam innama al amalu binniyat salat bi mooy kan moo ko solo su ko defee nga ne diw moo ko solee diw jëlee ko ci diw jëlee ko ci diw jëlee ko ci diw jëlee ko diw ba muy àgg jont bi sallallahu alayhi wa sallam loolu moom la ñuy wax sanadul xadis matnu bi mooy baat yi nga xam ne moom moom la yonent bi wax sallallahu alayhi wa sallam loolu mooy matnu bi maanaam wa yax yax bi wax yi ci boppam mooy matnu bi sanad bi mooy yoon wi waa ji jaar ba àgg ci yax boobu mu ne nag ma jël téere yi nga xam ne ñoo gën a wér ci indi hadis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy yan mu juróom benn téere yi ku ko mën a am ci sa kër sax garde ko wàññiwul dara mooy saxiixul buxaari yi benn buxaari yu mooy kan mooy abu abdullah muhammad ibnu ismaila ibnu ibrahima ibnu al-mughira al-ju'fi al-buxaari ca buxaara la dëkk Bukhara ci Union soviétique foofa Russia foofa foofa la foofa la Bukhari nag moo tax l'islam bi ñu ko liggéeyee dëggal comme ni ko Baye waxee woon wax arab yi ca Misra wax dinañ ko ca Libya wax dinañ ko ci Saoudia na xam leen na l'islam arab day garanti la ci waaye nag dooleem mu ngi nekk ñu ñu dul arab ndax boo seetloo tey hadisu Bukhari bii arab yi li ñuy fiir fiir fiir gi amul benn borom xam-xam bu ñëw ne beneen téere gën na ko weer te Buxaari yu du du arab mu ngi dëkk Buxaara fële ci ci ci Union soviétique bu njëkk ba di di Russia tey saxewul Buxaari yi muy benn moom mu ngi juddu atam téeméer ak juróom-ñeent fukk ak ñeent ci gàddaay ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi yonent bi bi gàddaay gi amee téeméeri at ak juróom-ñeent fukki at ak juróom-ñeent ci la Buxaari yu juddu mu ngi génn àddina atam ñaari téeméer ak juróom fukk ak juróom benn ci gàddaay googu Buxaari nag yàlla mayu ko doom ju góor moo wax moom Buxaari ne suma téere bii di bo saxiixul Buxaari maa ngi ko génne ci lu dem ci ñetti téem juróom benn téeméeri junne hadis juróom benn téeméeri junne hadis yoo xam ne mokkal naa ko ci laa jukki li ma gën a nangu ne moo gën a wér ma def ko suma téere bi moo tax ñu ne asaxu kitaabin baada alquran alkarim huwa saxiixul Buxaari téere bi gën a wér gannaaw alquran mooy saxiixul Buxaari koo xam ne fi ne nii juróom benn téeméeri junne hadis nga am nga tànn ca téere booba kooku xam nga ne tànn na ci lu bare bare bare bare mu ne benn hadis mosuma koo bind ci sama téere bi lu may julli na ñaari rakka hadis bu ma bind rek bala ma koo bind danaa julli ñaari rakka mu ne nag téere bi moom Buxaari yi mu ngi ko taalif ci fukki at ak juróom-benn saxewul Buxaari yi fukki at ak juróom-benn ci la ko taalif téere boobu yàlla jox na ko barke moom Buxaari yu ba jàngal na ko ñoo xam ne ñoo ko dégg ñoom ci làmmiñu Buxaari lu demee lu toll ci juróom-ñeent fukki junney góor juróom-ñeent fukki junney nit ja Buxaari yi jàngal na leen téereem boobu radiyallahu anhu mu ne nag hadis yi nga xam ne nag moom la Saxiixu Buxaari yi dajale ña ña ñeenti junne hadis rek la wala ci juróom benn téeméeri junne hadis lam ca tànn mooy ñeenti ñett ñeenti junne comme ni ko imam Nawawi waxee mooy waaye nag am na lenn il faut nga def ko bàyyi ko xel moo dina benn hadis dana ñëw Buxaari yu indi ko mu wér jëlee ko jibta abbas masala mu indi même hadis bi mais keneen a ko solo muy beneen saxaaba moo tax dana indiwaat même texte bi mu jógee ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye benn hadis a koy beneen saxaaba yu moo ko solo loolu tax ñeenti junne yooyu am na leen lu bari lu ci topp loo xam ne hadis yu wér la waaye nag benn hadis bu wéroon rek ci kenn keneen nettali ko mu mel ni tey nit ki dégg na ci bàyyi kii dégg na ci bàyyi kii dégg na ci bàyyi kii dégg na ci bàyyi léegi nga ñëw benn wax bi kii nettali ko kii nettali ko kii nettali ko kii nettali ko xam nga boo koy nettali li la war moo di ne ah bii de diw ma ko wax bii de diw ma ko wax bii de diw ma ko wax waaye wax ji benn la Buxaari itam noonu la wax dafa ne am na ci hadis yoo xam ne dafa baamu waaye li ko tax a baamu mooy ñi ko solo dañoo baamu mbooloo la bu ko defee nag ku nekk nag lam wax mu daal di koy indi loolu tax di leen gis benn hadis boo xam ne dañuy nuroo ne leen joxaw uute ci benn baat wala ñu uute ci benn jumla wala ñu uute ci tëggin wa waaye nag yax ba moom matnu ba bu jógee ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam benn lay doon mu ne kon Buxaari yu moomu mooy ki nga xam ne moom laa njëkk a tànn ci ñeenti junne hadisam yooyu ak yeneen yi nga xam ne yu ñu baamu la bokk na ci hadis yi nga xam ne moom laa tànnal suma téere bi mu ne imaamul xaafis nee na hadis yi nekk ci buxaari yu ci yoo xam ne du luñ baamu mooy hadisu mukarrar dul mawquuf hadisu mawquuf mooy hadis boo xam ne saxaaba bi dafa ñëw ba agsi rek aguloo aguloo moom ci yonent bi dafay nettali wax ja ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxoon nañu nangam ak nangam xam nga loolu fi ne moom indiwul yàqu wax ja mais maanaam la indi wax mooy ne hadis moo ko moo xam ne dafay yem ci saaba yi hadis bi bi nga topp nag bi nga xam ne moo jëm ci yonent bi moo lay wax alhadisul marfuu mooy lii yonent bi ko wax saaba bi ne yonent bi moo ne nangam daal di indi wax wax jooja mu jógee ci làmmiñam kooku itam mooy hadisu al marfuu al marfu ak mawquf yooyu yëpp da ngeen ko gis ci muy muy baamu toujours ci ci ci nafs yi waaye ay ay ay kii lay ay mandarga yoo xam ne dañ koy mandargalee hadith yi mu wa mu ne imaamu xaafis nee na hadith yi ci nekk mu ne ñaari junne la ak juróom-ñaar téeméer ak juróom-benn fukk yoo xam ne baamuwuñ ci benn hadith te itam amu ci loo xam ne saabu bi daf koy yemale ci moom. waaye lépp luñ jëlee ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wala ñu ñu ñu taaliq ko maanaam ñu aj ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu nangam yonent bi ko wax sallallahu alayhi wa sallam kon kooku mooy ci njëkk a tànn pour jëlee téeram bii ci addis yi nga xam ne moom la tànn ci juróom benn téeméeri junne addis yooyu ka ca topp mooy saxiixu muslim muslim itam gannaaw buxaari yu muslim moo moo ca topp kooku itam ba tey ko wala jógee fi nii saabuur la jógee ci ardu foofu faris wa abu muhammad xuseyn muslim ibn alxajaj ibn muslim alqushayri annisaabur yi moom mu ngi juddu atam ñaar téeméer ak ñeent mu ngi génn àddina atak atam ñaar téeméer ak juróom benn fukk ak benn moo wax ne sama téere bii moom muslim mooy wax dëgg maa ngi ko bind tànnee ko ci ñetti téeméeri junney hadis yoo xam ne dama ko dégg mu ne mboolem niti hadis borom xam borom xam-xam yi nga xam ne ñooy jëfandikoo hadis suñ daje woon ñu bind ci ñaar ñaar téeméeri at ci hadis yooyu ma ma ma ma tànnee sama hadis yi mu ne duñ génn mukk ci suñu sama sanad bi buñ doon buñ daje woon di bindaat hadis ak yooyu sanad yi nga xam ne ci laa jëlee sama hadis bi duñ gis sanad bu ko gën a dëgër mu ne li nekk ci téere bi ci hadis ñeenti junne hadis la moom itam dama Buxaari yu ne na ñeenti junne la kii itam ne na ñeenti junne la mu ne xatta am na borom xam-xam yoo xam ne sax dañuy wax ne saxiixul Buxaari moom lañ gën a moom la ñuy njëkkee soog a teg saxiixu muslim saxiixu muslim moo moo gën saxiixul Buxaari am na sax ñu àgg ci wax loolu di wane rek ñoom ñaar niñ ma niñ jegaante ci ci loola mu ne xaafisu Nisaabuur yi moom itam ci dëkk boobu la dëkk mu ne benn téere buy ronu asamaan bu gën a wér saxiixu muslim mu ne moom xamu ko te kooku itam xaafis la xaafis mooy koo xam ne mokkal la téeméeri junne addis yoo xam ne ak ak seen i seen i yoon wi ñu ko jaarale yëpp nga gën a tuuti kon nag ñun dañ doon tàmbali rek di ubbi te ñu ngi leen di boole koo xam ne li waa ji arab bi waxoon nabi laha amiran summa nam dafa am benn bés benn dëkk boo xam ne benn waaye dafa nekkoon ku am ittee ñu koy wax amir saa yu ñu demee rek ku am soxla rek bu ko amir jóg yëgee rek ne la tama toog man ma doon doxal la soxla daal di dem dox soxla bi faj ko indil la dem këram toog bi mu xam bi ñu ko miinee loolu ñu commencé di wax ne ku dégg ku am soxla mu ne ah da nga am soxla bu dee guddi sax da nga am soxla mu ne waaw mu ne demal ay amir da nga dem tëri dama ngay amir da nga dem tëri man tamit itam am naa amir bu nekk ci sama wet maa ngi koy ee te dem tëri te xam naa ne insha allahu dana ko rafetal ñu ngi ñaan yàlla ci daraja yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñi nga xam ne moo ñu may ñu jàng xadis yàlla nañu yàlla boole ci ñi nga xam ne nangul na ci jàng xadis ndaxte kuy jàng xadis rek borom xam-xam yi wax nañ ci ne yaa ngi teewlu yonent bi sallallahu alayhi wasallam ba mel ni yaa ngi teega moom waaw léegi nag bu fekkee ne yow yaa ngi amee sa salaatul fatiha yi di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam di teewloog moom amee hadis yonent bi sallallahu alayhi wasallam di teewloog moom kon ñaari teewoo ngi noonu kon lu am solo la lu rëy la te itam li ci gën a am solo moo di ne boo amee hadis nag fi ne ni da ngay am tranquillité parce que bëri na tey ñoo xam ne ñu ngi coow di wax hadis sunna hadis sunna te hadis ak sunna ci bopp sax boo leen laaj yoon nañ ci dañ cee wax lu bëree bëri ñaari hadis lañ mokkal wala ñett wala ñu ne foog naa ne kon nag teere la boo xam ne bu jar a jàng la te même sax bu boo demoon ba war a waxtaan ñu bett la ci waxtaan ne la waxtaanal ñu ciy julli ubbil tagi rek ci bàttu salaat yi da nga mën a fa jël ñeenti hadis yonte ba nga koy jeexale waxtaanu jeex ñu ne la waxtaanal ci ci diggante ay mbokk ubbil taaj ci moom waxtaane ci diggante ak mbokk nee la yonte bi li la wax ci nangam nangam nangam bokk na sax ci addis yi nga xam ne daanaka bi ma koy jàngee ci taaj ba léegi dana koy wax lu bari moo dina benn waaye dafa ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam di ko tawatal benn dëkkandoom boo xam ne daf koo sonaloon trop yonent bi ne ko demal muñ waa ji dem muñ waa ji gën a bari coono bi ñëwaat na ko sang bi man day coono bi gën naa bari de mu ne ko demal muñ waa ji dem muñ di ko def di ko def ba mujj gi daal mën na ko man daal mënatuma mooy fi parce que bu ma ji continuer mun naa am mu jur leen loo xam ne du la neex yow yonent bi sallallahu alayhi wasallam dama bëgg rek nga may ma ma toxu jógee ci koñ boobu mu ne ko déedéet bul toxu bu ëllëgee xam nga ne def bu xëyee sa na nga yees waa kër seen bagage yëpp da nga ko génne teg ko ci mbedd bi bagage yi kër ga lépp na ngeen ko teg ci mbedd bi bu leen bàyyi dara ci biir kër gi ngeen toog foofu xaar ma waa ji daal di xëy daal di génne bagage yi yëpp teg ko ci mbedd bi toog ak njaboot gi nag ci naaj wi ku romb rek ci saaba yi ne ah waaw yow lu xew mu ne ah xanaa suma dëkkandoo bii rek moo ma sonal waxtu wu ne mu ngi may doo mu ngi may tooñ ba boole naa ko yoon di ba tàyyi kooku ne daal di koy rëbb wala mu wax ko jël moo ci wax waa jaa ngi toog di gis loolu mu gis ku romb rek yëg affaire bi mu daal di jóg moom borom kër gi ko daan tooñ bi ñëw ne ko salaamaaleykum mu ne ko maaleykum salaam mu ne ko sëñ bi xamoon lu ma lay ñaan mu ne ko ah mu ne ko maa ngi indi sama njaboot gi ak sa gos ñu dimbalal la bagage bi ngeen delloo ko ci kër gi bu ma la waxatee benn baat benn baat gannaaw tey soo ko déggee ci man wala sama njaboot rek lu la neex wax na mu daal di jël bagage yi dugal ci kër gi ñu jàmm waa ji bi ñëwee ci yontu bi sallallahu alayhi wasallam yontu bi gis ko muuñ ne ko ah naka naka def ak sa sa dëkkandoo ba mu ne ko mu ne ko sang bi faj nga ko ba pare sa dara sa sàpp kon lépp loo xam ne soxla nga ko rek ci addis yonent bi sallallahu alayhi wasallam taaj mu ngi ko mu mu mu ci te juróom benn téere yi mu jëlee addis yi mooy saxihu Bukhari saxihu Muslim ak Tirmidhi Ibn Maaja yooyu nga xam ne ak Nasaa'i yooyu nga xam ne moom la waaj waxoon ne ida rumta alxaditha falus bi xamsin takun mitla almushahidi fi lxayaati taatara nasjuhu ma russa nasjun bi nuuri lilmuhaddisi lxayaati mooy mooy juróom juróom yooyu nga xam ne ñu ne soo buggee am addis dëgg dëgg dëgg nga xam ne bi yooyu am addis dafa mel ni ci yonent bi ko jëlee yaa ngi mel ni ku ku nekkoon ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam la jël ko ci juróom juróom juróom ñooñu mooy Bukhari yu ak Muslim ak Ibnu Maaja ak Tirmizi ak Nasaa'i ñooñu ay moom mu yokk ci imam Ahmad ñooñu moom itam ci ñi doon amee moo tax téeram bi juróom benn yooyu la la la wax ne ci la indi téeram bi boole ko ci muy taaj ak jaami lil usul fi ahadisi rasuli ñu ngi ñaan yàlla ñu ñu ko tàmbalil tey yàlla ñu ko mottalil ak ak dégg ak jëfee te yàlla yàlla jëriñ képp koo xam ne dégg na ci ñun benn hadis gannaaw bu ñu ko jàngee yàlla ñu may barkeeb hadis bu ñu fi jàng rek ñu ñu ñu ñu jëriñoo ko jëriñe ci ba ba ñuy mottali téere bi ci wér ak tal ko ak wërsëgu yaatu ak diina ju mat ak tariqa bu wér ak maarifatu bi sell ak des yàlla bu sell yàlla mën na ko yàlla ñu ko def allahuma salli ala sayidina muhammadin alfatixi lima uliq walxatimi lima sabaqa nasir alxaq bilxaq walhaadi ila siratika almustaqim wa ala alihi xaqa lillahi wal azim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salaamun ala almursalin walhamdulillah
jazakallahu xeyran ya cheikh mamadou amin jàngale mi jotale na lool te it nag li nga ñu ubbil ku ubbil ci téere bi ñu ko tegati ci waxtaan rek mën nañu wax ne yaa ko wax ndax lanay xadiis yi xadiis bu nekk lan mooy xiimaam dayoom nga wax ko ci anam yi nga waxee lu ñu waxati rek sa biir lii nga tàmbalee wax yi ci la ñu dellu ci war rek kon nag nam li nga wax xamalal amir rek te nga dem tëdd man damay dellu si waat ne yow yaay amir moom kon nag ñu ngi déggee lool te ubbeel ñu te la ñaan nag ndigalati loo bay salaat tey ci ñu jàngale wax yonent bi sallallahu alayhi wasallam ndax lépp ndigal lay amee salaat
alhamdulillah Makka fekk benn sama benn xarit ma dégg woon mu fekk benn borom xam-xam bu daan firi saxiixul Buxaari mu ne ma tey lay xatmu bi nañ dem nga fekkee si ko. wala bi ma demee sax waa ji borom xam-xam boobu biñ ko waxee ne kii doomu Cheikh Ibrahima ñu fi dafa jóg jàngalekati hadiis boobu dafa jóg ne alhamdulilah danaa doomu Cheikh Ibrahima fekkee na lii te biñ paree. man sax dugg ci boobu nag dëkkee waaye jox na ma ijaaza ci sax Buxaari ne ma jox naa la ci ijaaza kon nag te boo demee ci ijaaza bi baay yi nga xam ne joxe na ko dafa wax ne lépp loo xam ne jógee na ci man rek jox naa ci ndigal su ma doon Mouhamadul Amin te maa ngi sant yàlla na itam dund naag moom ay at yoo xam ne coole hadis bu mu bëgg a jàng lu man maa ko doon jàngal.
am na lu ma ci fekkee.
ma toog ci kanamam di jàng Buxaari yi buñ ko doon jàng ci buntab koor bu Ramadan ñëwee buntab koor la ñu ubbi ci saxiixul Buxaari mboolem euh, euh, téere yi nga xam ne itam téere sunna la te bàyyi daan ci euh, jàngale am na ji- jamono joo xam ne man maa ko daan tuddal téere yi muy muy firi kon loolu itam signe la woon ci li li xew nii moo tax itam bu ñu amee koo xam ne fi ne nii ñoo bokk yoon wi te bokk euh, mission bi war nañ ci war ñoo dimbalante ci lépp loo xam ne nit am na ko rek nga jox ko ko moo tax itam la ma jëlee ci loolu yëpp maa ngi la koy sëf ci ci bàyyi ci mag ak bàyyi ak xam-xamam ak man-manam maa ngi la koy sëf ba nga xam ne benn hadis du taxaw ci sa kanam insha allah boo demee ba taxaw ci hadis bu gëx mu xaw a lënt yàlla dana la indil maanaam yi nga xam ne moom la yoon bi sallallahu alayhi wa sallam bi himmati cheikh ibrahima radiyallahu anhu allahumma salli ala sayyidina muhammadin
ci lu rëy lii mu ñu defal te li gën a rëy ñaan gi gën a kawe maa ngi leen di ñaan yéen bi wax ne ku la defal lu baax gën ci tuuti ci la ngay fayanteeg moom ne ko jazakallahu xayran nañ ko jàngal benn faatixatul kitaab ak benn salaatul faatihi lépp bi mbaax yàlla moo ko def ci moom yàlla yokk ko ful ko ful ko ful ko muy ndaw di dem ci doomam ci tëtam illaa yawmal qiyaama أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق ولا إلى صراطك المستقيم وعلى آل أخر من الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu sant ki yàlla ci xéewal ak lislaam sant ci yàlla ci xéewal ak tariix bu tiijaan ñu sant ci yàlla ci xéewal ak Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu sant ci yàlla ci xéewal ak Alxuraan di sant yàlla ci xéewal ak addis waaye nag di sant yàlla sant bu amul ab si ànd bu ñu ànd ak yéen ñu baax ñi yéen ñu tedd ñi yéen ñu màgg ñi asalaamaaleykum wa rahmatullah suñu sëriñ Cheikh Mouhamadul Amin Niass dama ne ñu sant yàlla ci ànd gi ñu ànd ak yéen ñu baax ñi yéen ñu màgg ñi yéen ñu tedd ñi ku baax mooy lenn la yàlla la ku baax mooy kenn la lenn la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ku baax mooy kenn la lenn la lislaam la ku baax mooy kenn la lenn la nit ku xam taxawaayam yépp mooy fësal mbaaxu yàlla yëkkati ko yëkkati ko ba ñun ñu xeebu ñii ñu mën see teg suñu bët taxawtuñu ñu doxloo ñu ñu bëggloo ñu ko fexe nag doxloo ñu jëmloo ñu ci mbaax googu eggaloo ñu ci mbaax googu fexe ba dugal ko ci suñu xol eggale ko suñu aru eggale ko mu fees suñu jëmm yëpp ñu taxawee ko ñooñu ñooy alxuraan ñooy lislaam ñoom it ñooy ñi xam ne tamit tey ñoo fi uutu Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam doon ñooy jëmmi mbaaxu yàlla waaye it tamit ñooy jëmmi yërmande yàlla gis nañ ko muy seen màndarga gis nañ ko muy seen taxawaay gis nañ ko muy seen bëgg-bëgg yéen ñi daal bi ngeen di wax addis di tudd yonent bi sallallahu alayhi wasallam léeg-léeg ngeen tudd alquran man dama naan alhamdulillah ndax it la doon alquran tey am nañu ay jëmm yu xam ne suñ leen xoolee xool ba rek danañu yóbbu ci gis ne alquran moom mooy taar bi xam ne nii taar du ko sut te it mooy jàmmi doomu adama addina ak alaaxira dama ne suñ leen xoolee dëgg la suñ leen xoolee gis loolu waaye it nag suñu téyanteeg yéen amuleen yéen beneen jëmukaay bu dul eggali jaam yi ci li xam ne suñ ko rocci woon par benn benn ba mu jeex àddina duutul nekk kenn duutul nekk teg jën duutul nekk ak ki waajur dutuñ ko xam ak ki dëkkandoo dutuñ ko xam ak ki sëriñ dutuñ ko xam ak ki njaboot duñ ko xam kon duñu xamante benn ak kon dara du fa nekk ti dafay nekk kenn ko mën a tudd kon nag yéen jërëjëf ñun dañuy sant yàlla si ànd gu ñu ànd ak cheikh al islam wër la suñu sëriñ Mouhamad Amin xaw ma naa jot nga suñu leetaram déet ñu ngi leen di sant ndax dañoo bëgg la ngeen màggal du rek caa islam màggal ko nag mooy màggal lépp lépp yàlla waaye nag li ngeen màggal mooy da ngeen fësal dëgg dëgg li xam ne ni jaamu yàlla jóg ne dafay wut yàlla loolu mooy teer waayam dama kontaan di leen déglu maa ngi seen i ban ba bët gis man may nelaw ndax it kaddu bu jóg kaddu bu jóg dafay mel ni daf lay téyewaat boo naroon a gëmm mu yeewaat la te lépp nag di jàngale nekk te jaamu yàlla maa ngi koy waxtaan nag sama benn goro ma àndal tey mu jël fii sax wérd ci bi ñu añee ba pare ñu tëdd avant ñu añu tëdd ci sàddu garab bi di ko wax ne ko fi mu ne nii naxe du amati tant que cheikh al islam dootul deewati mënatul nekk mu ngi fi mbóot maa ngi fi te ñu la ko yëgal suñu sëriñ bu màgg bu tedd bii cheikh ibrahima sall la ngeen bëgg da ngeen koy dund da ngeen koy digle toujours muy doxale jaam yi comme na nga ko ñaam léegi ñu jaar ci yoon ba seen biir rafet tajali peñ seen làmmeñ di seen déggukaay rafet di seen xoolukaay rafet di seen doxukaay rafet moom mii de def na ko jéem nit ci lëndëm dugal leen ci leer si fànn yëpp lii benn la si ak li xam na ni yéen xam ngeen ko xanaa jamono bi kay ñoo koy xame ji te insha allah dinañ ko xame ji te loolu nag mooy dëggal cheikh al islam te moo koy eggale ci ruxuruxaat yi ci ruxuruxaat yi ba si àddina daj nag dana daj maa ngi wax keroog benn waaye ma ne cheikh Abdul Aziz si ku baax la ku baax la waaye li ñu wax ci moom lépp am nañu mbër mu xam ne nag moom lay def ci doomu adama yi te insha allah dina ko def ci doomu adama yi te luy tàlleeku la te dana ndaj danañ xam ne nag loola rek moo doon jëmuwaayu nag lislaam loolu rek moo doon jubluwaayu lislaam keroog da ngeen dëggal nit ñi ñu doon déglu nag arabisant ña ngay faral di junj sax ñu doon ooto ay sunna te it tamit sax peut-être seen xel seen xam-xam ñëpp laa la wax xam naa ne ku ko daan wax léegi da nga ko nëbb boo koy wax naa nga koy wax loolu lu leer a leer la ndax yéen da ngeen wane lu lislaam man dama koy dama koy wax dëgg-dëgg man léegi rek laa ko mujj wax fi ay mbokk taalibe ma naan leen attention de arif la arif la arif la fexe leen nag bëgg